toute la population Sénégal am naa mbégte ak contentement pour teew ci télé bi toute la population Sénégal sauf. les familles Ndour bokkuñ suma nuyoo tey bokkuñ suma nuyoo ëllëg les familles Ndour il ne fait pas partie de mon salutation je salue tous les Sénégalais sauf les familles Ndour dirigées par le général Youssou Ndour et c'est capitaine et les dëgg yàlla et les les receleurs des Ndour les receleurs des. heure baa ngi dem mooy ma receleur de fréquence de satellite. El Hadj waaw El yow wax ji ak affaire Youssou Ndour gi nga am hmm. bàyyi leen def leen ci te nga bàyyi mu sedd eh. ba tax na ki nga xam ne rek moom moo di jagandu lañ ko dugal ci kaaf bi <laughs> rëccan waaw na mais waa bàyyi mu sedd dafa dugg mais rëcc pas la plainte parce que Ndiaga a un vol comme Alibaba un vol de siècle moi j'ai acheté les les fréquences satellitaires. pour faire un direct. j'ai regardez-moi pour faire un direct mais le direct ne marche pas. les gars me disent le direct na marche pas mais moi j'ai dit que j'ai un fréquence. waxal olof seen jamono boobu. waaw ndekete TFM mu ngi def direct muy leer ñuy seetaan. ma ne mais man j'ai voulu faire un direct. ñu ne ma le direct ne passe pas parce que yaa a quelqu'un qui est entré de tubaab yi ne ma yaa ngi dogal. man ma ñu ne ma yaa ngi dogal sa télé bii mi ngi daw. ma ne leen 2 mu ngi ni ñu ne ma eh on va faire un capture d'écran pour te montrer que ni vous avez en de utiliser le satellite. Eh? on a fait un capture d'écran ma gis seen paa boobu nu Ndiaye muy wax lamb ji lamb ji man lay qu'est-ce que c'est que ce bordel là pourquoi c'est lamb ji lamb ji qu'est-ce que c'est que encore. et les logos de 2STV de TFM mais j'ai dit que vous ne faites pas une erreur non yaa ngi nii sa télé bu ngi man leen c'est pas moo télé moo télé c'est 2STV ñoom en tout cas on est de euh, kii le signal ndekete li ñu ma sàcc kenn mënu ko compte ndekete man li ma toog TFM di direct yëpp sama fréquence bii lay direct tubaab yi envoyé ma liste ne ma def nga eh, deux cent quatre quinze direct ma ne yii quinze direct mais les deux cent quatre quinze les cent quatre-vingt-quinze c'est pour TV. pour lan cent moo yor fiil yi di lonk-lonkal di roof di roppi di ma roo di ma roppi di roof bu seen bos di ma roppee roof yu seetal loolu yow hélas mooy fay nga roppi hélas roof yu waaw baal leen bàyyi mu sedd bàyyi mu sedd mu mm, yow ak niñ la xamee ci fulla ak fayda eh. te jullit nag jullit rek la mun a nekk eh. te est-ce que Youssou Ndour moom muy ndey mbili ji <laughs> bu defoon délégation ak famille bi ñëw baalu la est-ce leen baal dañoo war a dagg seen loxo <laughs> l'islam yaa dugg ci diine wala duggaloo ci diine sàcc dañu war a dagg loxo bii laa wax dañu leen a war a woo dagg seen loxo parce que dañoo def li ñu tuddee vol ce sont des voleurs. ndeysaan metti na ko nag mais baalal. dañu maa sàcc mais baalal euh, élage day jéggale jéggal leen day jéggale nga démb démb kii dafa da ci njaga ndax li ma bëggoon ko dugal ci kii. ma ne njaga il y aura des problèmes. baal ko élage baal ko. élage baal kenn kii ay milliards la ma sàcc. mais garaawul ay milliards na ngay laaj. li may laaj dédommagement. mooy pour ñu jox ma. xalaatal ñu jox ma TFM. <laughs> loolu moom jërëjëf TFM nañ ma ko jox. mu nekk suma télé ma moom ko comme que ñoo doon jël di roof ba tubaab yi nee nañ ma yaa ko moom. roppil hélas roofal yu seetal loolu. <laughs> roof yu. baal leen. ban lépp rokkil El Hadj roof yu jërëjëf mu ñaari fii la jël bii mu def ci El Hadj bii mu def ci yuute roppil